askan way yeewoo ci Sindiane 1 Sindiane 2 Sëgëlim ak Duki ñoom génn nañ di naqarlu ni nga xamante ni moom la ak waate gi yore seen forage bi colonel Momar Gueye moo ko tabaxoon moo ko defaroon bi mu fi nekkee jox ko su jox ko population yi buñ ko joxee population dañ ne jël leen seen yëfi bopp ngeen saytul ko seen bopp biñ ko saytoo suñ bopp amoon na li nga xam ne moom la ñuy wax brigade puits et forage amul benn weer buy jàll boo xam doo ko yët rapport doo k yët rapport financier rapport moral yëpp nga ko yët mu xaalis xam fi nga toll ci activité xam fi nga toll ci lepp kon lan moy ndey ji bàyyi dem diko ko diko jox offort offort dem diko signer ak ben fermier bu ñu wax aquatep te mom ñew fi pour lu note askan wi ñew fi lu pour toroxal askan wi ñew fi pour pour tek ñu gatché su dugal ñu toxi doona koo xamni xamuñ fuñ koy waxé motax ñu né ño bañ ci ñom jamono ji ndox tarna te jafé jafé yu metti la leen jural xalé yaangi di jàng xale balaa jàngi dafa war a sangu xale balaa jàngi dafa war a sëlmu dañoo war a tàngal ndekki gi dañoo war a tàngal kafe gi bu ndox amul loolu du am suñu jur gaa ngi nii bu nu amul lu nu waggee suñu jur te nit ki bu bu liggéeyut du fonctionnaire du leneen sàmm rek la yaakaar ak béy su amul ndox mu mu waggee juróom bu yàggee jur gi dee te bu jur gi dee ci lu muy sukkandikooti sunu tool yi nga xam ne tey ji moo taxoon ñu ñu ñu bënoon forage bi ne dañ koy booleeg tool yi tool yooyu ñu ne nañ ciy saytu di ci yëngu bu jardin bi toxul nu euh, jigéen bi lim ciy jële doon ci dimbali jëkkëram doon ci def ay natam doon ci def ay tegam dootu ko laaj jëkkëram bu ndox amul fan lañ koy jëlee. ñi nga xamante ni ñàkkum ndox gi ñoom la gën a laal moo di jigéen ñi ñoom ñu ngi ñuy xamal rek ne jamono ji ñoom ñëpp ñoo feebar ndax rot moo metti bu ngeen ko gisee sal docteur bu ngeen fa demee jigéen ñëpp a feebar ndax jukki bi nga xamante ni moom lañ gëj a jukki te di ko jukki xale yu ndaw yi mënuñoo jukki nun mag ñi nooy jukki way fii ne nii dañuy xam am fukki paan ak juróom ndax di nga wëgg saw fasu jëkkër di nga wëgg say bëy di nga wëgg say xar di nga raxas sa duus di nga minaas di nga raxas say ndab day indi a gàllankoor ndax ndox bi yàgg na teen boo xamante ne am na ñeenti nga doo ko ubbi ay ay gunuuran ki ay saxangi ci xale yi sànni nañ ci lu nekk boo ko seetee koo gis dafa soj koo gis dafa feebar ndax li askanu Sindiane 1 Sindiane 2 Sëgaleem ak Dutki ñoom nee nañ lii xeex bu njëkk la rek ndaxte fas yéene nañu koo wéyal ba waa waa Tek delloo leen seen forage